moom it génnaat ngir raxas ko ci côté bi ñuy jëm ci législative mais déjà di di récuser carrément sortie bi parce que yaakaar naa ne tey euh, moom li mu wax nee na bu muy dem les indicateurs étaient au vert. Hmm. je crois que bu indicateurs yi nekk étaient au vert kenn du ko fi jëlee c'est aussi simple que cela et tey moom fan la fekkoon dette bi bu muy ñëw environ trois mille milliards fu mu yóbbu dette bi. presque seize mille milliards de dettes comme ni ko su ma frère waxee tey c'était en réalité endettement pour investissement boo xam ne prestige la uniquement et que loolu du mooy moo nekkoon urgence su sénégalais la pyramide des des urgences a été inversée parce que nag wax dëgg fa yàlla tey bu nit ñi sonnee genn sonn gi président Macky Sall dafa focaliser woon ci ay ambition muy surtout troisième mandat il fallait fait des investissements yoo xam ne tey da nga koy inaugurer sur une période pour que sénégalais yi bëgg la joxaat li nga xam ne mooy réew bi parce que boo jàngee finance tuuti tey jii booy def investissement dafa am c'est y une périodicité mais mënoo nekk ci estade bi jóge ci dem ci BRT dem ci TER et cetera en un temps record tu engage le Sénégal dans de gros chantiers te ñëpp xam na ne. gros chantier de l'état si la ñuy defee seen mbuxum yi donc moom li mu wax parce que nag dinaa ko comprendre tuuti parce que géologue la il n'est pas financier ni économiste géologue la parce que si aujourd'hui les indicateurs étaient au vert te yaakaar naa ne moom sénégalais dund na doyal nañ par rapport à la gestion bi nga xam ne noonu lañ téye woon réew mi te buñ waxantee dëgg rek wax dëgg fi yàlla ñàkk nawloo sénégalais yi en tant que président bu fi def 12 ans mooy pareegoo sax ñu lay jox ay fonction en France nga nekk valet wu ki nga xam ne mooy Macron di dem di ko doxal ay soxlaam te pourtant waxoon nañ ne carrément na fi def benn fondation boo xam ne dina ko gérer pour toog ci réew mi jàppale réew mi gëmul sax li muy wax parce que bu naw la woon sénégalais saa bu yëkkatee kàddoom di wax même bu mu nekkee président ci biir réew mi la koy waxee ci biir presse la koy waxee ñu doog ko relayer pour l' étranger mais c' est tout à fait le contraire je crois que moom il est toujours ca fa mu taxawoon te man gëm naa ne ba gëm naa ne tey il pouvait pas sortir dire autre chose mënul génn ne carrément li Ousmane Sonko premier ministre di wax dëgg la et dañu nekkoon di makkee loolu xel du ko nangu lii rek la mën a wax pour s'en sortir mais dañ koy renvoyer moom ci indicateur yi nga ne bu muy dem il est c'était au vert et que tey ñëpp gis nañ ne effectivement loolu du livré à la réalité ñu koy wax ne moom ci koo xam ne jàng nga finance xam nga ni ñuy defee budget ci budget bu ñu koy def am na lu naan le gonflement artificiel qui te permet seen yenn rubrique yi tey am na noo koy tënkee pour am équilibre bi ci suuf tout en sachant que y a un gonflement artificiel dans le budget loolu nag ñiy jàng nag ñoo koy xam finance mm. donc ñun dañ koy wax rek moom na droite gauche rek dugal na réew mi ci kàmb parce que il plus fait des investissements yoo xam ne c'est plutôt investissement de prestige yoo xam ne tey moo topp réew mi ba fi ñu toll bi muy dem dafi bàyyi presque seize mille milliards de dettes et loolu lu doy waar la loo xam ne tey su fekkoon ne pyramide des urgences inversé ko moom pour ses propres intérêts mooy que liggéey ba ñu ma falaat ma parce que sama bilan du ñu nekk ci situation bi bu fekkoon ne tey investissement dafa am ay normes a ah fuñ ci yem mais yenn leb yi tamit soo ko lebee il faut que mu am plus-value ci dunduñu Sénégalais yi secteur yi ñu war a investir dëgg pour que Sénégalais bi bu bëggee lekk lekk bu suur naan ba màndi jàng jàng bu baax feebar faju yooyu dañ ko fragiliser pour se retrouver avec des terres dundal baaxul avec BRT avec stade boo xam ne tey buñ ci fubalee tey dinañ toogaat ay weeri weeri weer tëj ko avec jam Diamniadio bi nga xam ne le projet bi nga xam ne président Ablaye Wade amoon na ko mu nekkoon projet boo xam ne c'était pour déconcentrer Dakar. créer une nouvelle ville aujourd'hui gis nga jam Diamniadio nu mu mujje waruñu woon toll foofu donc président Macky moom dañ koy ñaanal rek mu toogee gauche te mu ñëwoon ci réew mi nag moo gënoon parce que bu ñëwee xam na fi li ko fi xaar parce que li mu fi liggéey dara baaxu fi surtout le deuxième mandat parce que est-ce que du ay menaces moo koy xaw a euh, reculer loo un peu ndax ah. souvent yenn discours yi day mel ni genre menace ay moromam jaar nañ fi mais teewul heure bu leen neexee ñëw Sénégal doxantu et cetera mais moom lii tax tey muy laam-laamee ndax mën nañ ñëwaat mënul ñëwaat eh, xam na ko. ça veut dire ay moroomam defuñu scandale. non mais mais mais mais li ñu dund ñun ci histoire politique gu Sénégal li ñu ci mujjee dund nii ci jamono yi passé depuis deux mille vingt ans ba léegi dafa jéggi dayoo. on n'a jamais vécu li nga xam ne tey euh, peuple sénégalais enduré na ko pour uniquement retrouver dooleem retrouver boppam pour faire une. un changement et transformer ce pays lim ñu yanoon dafa metti trop et tey jii na wàcc sa ñëw c'est aussi simple que cela na wàcc sa ñëw def campagne et puis dafa dafa dafa ruslu sax un président de la République qui aujourd'hui est tête de liste pour être député il est tombé si moo tax la sagesse politique aussi dafa am solo sagesse politique il faut savoir par moment soo wàccee am yenn station yi am na yoo xam ne bu la ci kenn dugal parce que daf lay rétrograder daf lay abaisser aujourd'hui le président Macky Sall se pour être député tête de liste tiré loolu la ci soxla dëggantaan est-ce que amul lu mu bëggaat ci kanam. mooy immunité parlementaire bi mais du ko am. maanaam pour sàng boppam sutura. mais non attendez dañu wante dëgg rek si aujourd'hui les autres membres du parti ou bien de leur coalition qui n'existe plus s'il n'y a personne qui aujourd'hui ne peut ne peut pas tirer cette liste là il y a un dafa jóge ci gratte-ciel wàcc tey ci néegu ñax mooy que tey Macky Sall dafay xeex tey pour nekk député. tirer une liste tirer quelle liste. d'accord kon nag li ñuy liggéey baax na fi kay jaru sax liste boobu ñu koy tirer. et puis fële la koy tirer à l'étranger de. Mhm. waaw. pourtant Cheikh Oumar ci ay kàddoom mu ngi wax ni ay investissement am yi nga yi nga doon junj sànq bu ñu xoolee investissement yi mu def yëpp nee yu visible la xool di nga ko gis te effectivement nag. Euh, président nag investir na am na bilan matériel boo xam ne ñu ngi ko koy waxal loolu quand même est ce que euh, nekkul lim leboon lépp fa la ko dugal loolu dem est ce que duñ ko ko redressé mais li nga doon wax sànq mooy est ce que am na lu mu oui mais xam nga ci développement nga wax dafa am lu ñuy wax mal développement xam nga luy mal développement hmm. via Diamniadio on a ay bâtiment yu rafet on a l'hôtel Radisson on a stade bi gën a yaañ ci Afrique mais à côté ndaamaraas la ñuy jaay pour lekk à côté jaay ma clémentine ngay dégg y a pas les sociaux de base parce que léegi si critère de développement on regarde indice de développement humain ama ñii dinañ ñëw seen pro il te parle de capital humain ça dire dañu war a ci priorité nit yi j'ai pas dit et je ne dirai pas que Macky Sall liggéeyul doo ko mës a dégg moom bi fi nekk maa ngi gis lu mu liggéey keroog testé naa ah BRT hmm. damaa dawal sa moto ba préfecture Guédiawaye ma gaare ko yëg ci BRT bi fay téeméer c'est visible hmm. je ne dirai pas que liggéeyul peut-être vous n'avez pas compris mon propos j'ai dit mën nga leb nga dugal exemple bi mu la jox dafa dafa simple